sëriñ bi dañu ko fas yéene ko fas yéene liggéey liggéey raditu anil mawla taala lasi rabba wadi فأنيت اليوم عبدا بذكري وأني أطوف روى النار وسبا نبس لقى لله عبدا مرتلا لذكر حكيم عن جناب الهدى سبا أرتل ما دمت حيا وأكتفي صدق الله العظيم wa ballaqa rasuluhu nabi mustafa alkarim wa nahnu ala ma xala rabbina wa mawlana min alsahidin allahuma irhamna bilqurani alkarim wanfana bi bilayati wa zikri alhakim waj'alhu lana hujjatan yawma ddin allahuma infana bima sarafta fi min alayat wa dhakkirna mima darabta fihi min almazullat wa kaffir bi tilawatihi an nasiat innaka mujibu da'awat allahuma taqabbal minna khatma alqurani wa tajawaz anna ma kana fi tilawatihi min shahwin aw nisyaanin aw tahrir aw taqdimin aw taqirin aw ziyadatin aw nuqsaan aw tawili ala xeyri ma ansaltuhu aw taajilin inda tilawatihi aw kasalin aw sayqi lisaan aw waqufun bi xeyri waqfi aw idgaamin bi xeyri mudgaam aw izhaarin bi xeyri bayaan faktub minna ala tamaami wal kamaali wal muhasabi min kulli alxaan warsuqnaa fadla man xarawa mu addin aqahu ma al aadaai wal qalbi wal lisaan wa hëb lanaa bihi l xayra والسعادة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والضلالة والتهيان ونبهنا قبل المنايا منا ومن خفلة والكسلان وعمنا من أصعب الخبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان وبيض وجوهنا يوم البعث واعتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وضبط أقدامنا على الصراط واسكنا في وسط الجنان warsuqnaa jiwaara sayyidina muhammadin alayhi salaatu wa salaam wa akrimnaa bi liqaa'ika yaa dayyaanu allahumma ij'al al-qur'aana al-'aziima rabii'a quluubinaa wa jalaa'a ahsaaninaa wa sa'aaba qumuuminaa wa xaa'idanaa wa saa'iqanaa ilaa jannati na'iim allahumma ij'al aniisanaa fil wahda wa musaahibanaa fil wahda wa musbahanaa fi sulmati wa daliilanaa fil xayrati wa munqisanaa fil fitnati واعصمنا به من السيق والأهواء وكيد الأعداء يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم اللهم اختم بسعادة آجلنا اللهم اختم بسعادة آجلنا وحقق بزيادة آمالنا وقرن بالعافية قدونا وأزلنا واجعل إلى رحمتك مزيرنا ومآلنا واصبر استجالافك على ذنوبنا ومن علينا بشتم عيوبنا اللهم اجعل تقواك أزدادنا والثقة بك صغرانا واختخادنا وأمن من الجوع والخوف بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم بلغ الثواب ما أخرناه wa nuuru maa talaw naa wala ruuxi sayidina wa nabiyina muhammadin alayhi salaatu wa salaam addiyatun xaalisa mutawaasila ilaa ruuxi Cheikh Ahmadou Khadim Khadim Rasoul Cheikh Mahamadul Fadal ak mbooleem jullit bu faatu góor ak jigéen te jamono yónnente bi ba léegi ba fi ki tey yal na leen yàlla yërëm woyofal suuf ci seen kaw àtti leen ci yërmandeem barkeb rasulillahi allahuma bale sawa maaxara naaw nu ramatalaw naaw li ruuxi bàyyi daam jóob yal na ko yàlla yërëm xare ko àjjana atte ko ci yërmandey boppam wa li arwaahi abaa'ihi wa ummahaatihi wa azwaajihi wa zuriyaatihi wa ashaabihi ridwanullahi taala alayhim ajmain wa ila arwaahi abaa'ina wa ummahaatina wa masaayiqina wa li arwaahi jamii almuslimina wasalaatu wasalaamu ala sayidina mawlana muhammadin xaatimu nabiina wa imaam al mursalin subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al mursalin tafaddal alayya al yawma ya rabbi bil muna bi fardin wa faydin yuxjilul wabla munsabba ilayka البيداء يا من وقد تبى ليسرف كؤوس القوم ولتسقني بها مواسي وابل المسيارك والعباد ليسرف كؤوس القوم ولتسقني بها ووسي وابل المسيارك يا ربي والعباد سلامي بالمسباي عني جلوتا عليه صلاة منك بأوبار عسلت بي كبريت وغبي مربيا عليه سلام منك يكفيني الخبار لقد سقت لي في البار ما كنت راجيا بجاه الذي سيرته الخل والحبار ما أوت بي عيني فخني من الغداء إلى asalaamaaleykum mbokki jullit ñi mbokki taalibe yi ginnaaw bu ñu leen jaajëfalee ci jëf ju rafet ji ngeen def jëm ci njàngum alxuraan ji ak xaside yi ak li taxawal bis bi ñoo ngi leen di soññaat nag di soññ suñu bopp jaamu yàlla ak nangoo liggéey jaamu yàlla jullee ci jiitu nangoo liggéey day tax loo bëgg a faj yàlla jàppale la nga fajal ko sa bopp fonk suñuy waajur bu góor bi ak bu jigéen bi bu dee dund respecté suñuy sëriñ di dimbi leen suñ biir bopp bàyyi ak mooy yàlla mooy yàlla nag dafa bari façon waaye bi ñu bëgg ñu ci gën a bëgg mooy jigéen ju la lewut nga bàyyi ko fi ak jabari jàmbur ak yàpp mbaam ak carte xaalis ak naan sàngara ku ko fi bàyyi rek nekk ci la yàlla digle ku koy def nag waaye di wasalaamu aleykum wa rahmatullah taala wa barakatuhu waqdi hawaïji lasina daamu fi xidmati wa hablahum maaraamu yàlla nañ ca bokk فسلي بتسليم على خير من لباه أي الله يا رحمن يا من أخذني فسلي بتسليم على خير من لباه وسرت فكلي بالمخفى وآلي وأسامي من أجل ليس يصطفى سواب الله في كل خصوة مع الحب والرضوان والقرب والقربات يا دوم الرحمن حقا وكلهم يبصر dañu koy yëkkat ni genn wàll gi ci turu président pàkk bi Ibrahima Diouf mi ma dendal wante man cër biñ ma ci jox mooy maanaam sant képp koo xam ne nii teew na fi ak képp koo xam ne nii xëy na sa teewaay jafe woon na waaye teewul yónnee nga ci ñooñu ñu ngi ciy jiital président pàkk Touba mbaay di Ibrahima juuf di ko sant bu baax ci taxawaayam moo ñi mu àndal ñépp le maire de Gawane Ndonga Faye yeble na fi ñu ngi koy sant bu wér di rafet lu taxawaayam sëriñ sëwru juuf Tuguj yeble na fi ñu ngi koy sant moom bu wér ci taxawaayam ci bis bi Serigne Modou Mbacke Ndiir bu Moussa Ndiir ñu ngi koy sant bu baax moomit ci taxawaayam ak ni mu yeblee ci bis bi sëriñ Jili Njaay pàkk bel yeble na fi moom ñu ngi koy sant bu baax ci taxawaayam ci bis bi délégation ñaari guddi ndakaaru ci njiital sëriñ Modou Sène ak soxna aminto Mbeng ñoom bi mbir mi amee ba léegi fépp foo xam ne nii mbokk yi dugg nañ fa rekk ànd nañ ci ak ñoom ci wax ak ci jëf seen taxawaay ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax euh, docteur Assane Ndiaye le maire de Lambaye moom tam yebal na fi délégation bu am solo ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di xam ne it maanaam teewaayam wala yebleem ci bis yu mel nii du tey kon mention spéciale ci moom di wax ne maanaam képp koo xam ne nii teew nga fi du ñàkk xëy na duñ mën a lim ñëpp mais ñii ñu lim buñ leen limee mel na ni lim nañ ñëpp kon képp ku fi teew wala ngeew la fi rek encore fois ñu ngi lay ñaanal di la sant di la gërëm di ñaan lii ñu def lii bu yàlla dimbali ñu kàttanal ñu ba bu déwénee it ñu teewaat ko nii kenn bañ a manqué jërë ngeen jëf salaamaaleykum wa rahmatullah خلي الخيول له فؤادي وجسماني وليقبل الكسبان أديم لو ما يسر إنسى عبادة وأرجو قبولا منه خطور سلبسبا جعد كتاب الله يهدي وأتقي moom mi ñu àndal liggéey bi de dëgg-dëgg ah ñu ngi koy sant di ko gërëm di leen sant yéen yéen ñi ñu àndal liggéey sëñ Tuubaa bi muy waa Buntu Pikine dëgg-dëgg ba ñu ànd ak yéen ba léegi gisuñ ci leen lenn loo xam ne naqari noonu te lépp lu ñu gis ci yéen it ci liggéey sëñ Tuubaa doomu la ak pas-pas kon dañ leen di sant di leen gërëm tey di ñaanal kay xam ne moom ngeen ñu boroon ñu seen jiw yiw ndax ndaw la loo xam ne nii day dëgg-dëgg dëgg nañ ci moom lool kontaan nañ ci moom ndax doxalinam day rafet kon ñu ngi di ziare te

وكلكلي وجسمي لمن لي وجالس والوهبان منادي وأقلامي ولوحي وكلكلي وجسمي لمن لي وجالس والوهبان jërëjëf mbokk yi nga xam ne ñoo bokk teew fii ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax ci ndigalul kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci pàkk bi ginnaaw bu leen santee ñoom ñi nga xam ne ñooy kilifa yi te jiitu ñu fii ci pàkkab Lambaay ñu ngi leen di sant leen ñaanal fan wu gudd ak wér ñu gunge ñu ba ca kaname kaname kanam sëriñ Abdoulaye Diop Bichri ñi nga lay sant bu baax a baax a baax di gën a feddali suñu kóllëre ak yow di ñaan sëriñ Tuubaa mu teel ñu ko ñi ngi lay ñaanal xam ne suñu xol sedd na ci yow buy wax dëgg yàlla mel na ni boole nga nu ci sa bopp ndax comme ni ma ko waxee léegi rek bi nu la soxlaa ñeneen soxla la da ngaa xaj yëpp jox na kon loolu ak yëg la te ab cër la yëg googu gis nañ ko bu baax cër boobu tamit gis nañ ko bu baax a baax ñu ngi ñaan kóllëre gi ñu sëriñ booleel ñu ngi ñaan sëriñ bi mu téel ñu ko kontaan nañ ci yow bu baax a baax a baax. ñu ngi sant bu baax ñi nga xamante ne bii tamit ñooy kuréelu ñaari tukki Dakar yi nga xam ne def nañ délégation bu am solo ñëw teew lañ ko defee woon daaw ko defee waat ren kon ñu leen di sant bu baax yéen ñi nga xam ne yéen nañ fi tamit su ngeen demee na ngeen di jàllale sunu sant ci mbokki taal bi nga xam ne ñoom ngeen bokkal liggéey ba muy Baye Ndiouga Dieng bu ko defee dañuy sant bu baax waa Fakku Lambaay gépp ci njiiru Baye Moustapha Diop imam ak euh, Serigne Ibrahima Diouf mi ngi xamante ne mooy président pàcc bi ak euh, délégué euh, Serigne Ibrahima Fall Diop Lamp mu ngi leen di sant bu baax a baax seen taxawaay rafet na lool ak Baye Mbaye Ndiaye mi ngi leen di sant bu baax mel na ni suñ tuddee imam rek tudd président pàcc bi dañuy jàll leen suñu kàddu rek ci ñëpp rek suñu xool sedd na bu baax gis nañ seen taxawaay gis nañ seen ak dal gis nañ tamit seen ak yëg waaye nag lépp sëriñ bi la rek. sëriñ boobu nga xam ne nag moo tax ñu ànd di liggéey yàlla ñu teel boppam noonu la ñuy continuer tamit di sant ñi nga xam ne ñooy sëfoor yi oto yi sëfoor yi nga xam ne ñoo it wax dëgg yàlla depuis ñu commencé liggéey ba léegi kenn ku ne xam ne ne israf bi fi ñuy gaare waaye kenn ku ci nekk yaa ngi wut foo làq sa lépp rek ngir bis bi jàkk ngir bis bu rafet kon wane na nañoo ñun ñoo ko bokk ànd ko ak ñun ko defee noonu la ñuy continuer di sant borom yi nga xam ne ñoo nekk ca Tàkku Lambaay ci njiitul fallu muy siiw ñu gën koo xam ne siiw maanaam gis nañ seen délégation gis nañ seen mobilisation gis nañ seen ak jàpp gis nañ seen manko gis nañ seen jublu lépp jëmale ko ci bis bi su ko defee ñoom tamit danay jàllale seen i kàddu ñi nga xam ne ñooy waa Pakam Lambaay ñu ngi leen di wax ne nañ xam ne waa borom seret yii ñoo waa Pakam Lambaay lépp lu ñu nekk tey ba suba fas nañ ci yéene ànd ak ñoom lépp lu ñuy yëkkati fas nañ ci yéene ànd ak ñoom bu dee lu liggéey même buñ leen jëlee bu leen fayut sax dinañ jël liggéey ko ni ko bëggee ndax def jël nañ leen def leen seen bopp waaye ñi nga xam ne tamit nañ leen gën a yërëm gën leen a jàppale xam ne tamit li nga xam ne ci leen yëngu di ci daan seen doole ci leen yor seen njaboot ci leen yor seen kër te it amuñu lu dul loolu ndax mu mënuñoo sàcc mënuñoo fen ñoo taxawal ndax yeyoo nu ko kon ñun ñi xam ne yéen a bokkal nekk fii ngeen féete leen ci kanam mag leen yàlla suñu borom dénk leen lu leen dénkul na ngeen leen gën a jàpp gën leen a boole ci seen bopp te xam ne ñun dañ leen jël boole leen seen bopp kon borom sereet yi ñu ngi di sant bu baax a baax a baax dégg nañ seen message incha allah rabbi dinañ ci bàyyi xel bu baax waaye yéen na ngeen xam ne maanaam gannaawulul leen ñu leen benn leen dañ leen jël def leen comme seen bopp liggéey nag bu ñëwee kenn ku ci nekk rek da ngay xam ne mbir mi sa mbiram bopp la nga def ko rek muy sa mbiram bopp kon sant na leen bu baax a baax a baax gis nañ seen taxawaay gis nañ seen mobilisation tey gis na li nga xam ne moom ngeen dajale andi ko jugal ko ci bis bii kon sant nañ leen bu baax a baax gërëm na leen bu baax a baax di wax tamit euh, ñi nga xamante ne bii ñoo féete woon ci wàllum waaj bi luy ci njiital Alsane ak euh, Serigne Ndonga Serigne Ndonga Ndiaye ak Alsane Kane ñu leen di jaajëfal bu baax ak euh, soxna yi nga xam ne ñoom ngeen àndalan ci njiitul soxna abi moom it wax dëgg yàlla gis nañ pëstéew gis nañ taxawaayam lépp lu ñuy liggéey ci sëriñ bi rek góor ñi duñ ko defan góor ñi duñ ko ci jiitu ba tey ci suba rek moo ci mujj daanaka café Touba nga xam ne moom lañ xiwal suba gi moo ñëw jaayam ko na def na ko addee sëriñ Touba tey loolu mosu cee jóge kon ñu ngi lay sant bu baax a baax di la ñaanal yàlla suñu borom bàyyi la sa kanam njaboot ba nga fekk seen njariñ barke sëñ Saliou su ko defee borom magasin yi nga xamante ne bi tamit ñoom lañ baare woon wax dëgg yàlla kenn ku ci nekk xam ne ubbi sa magasin yow sa njaboot yow sa kër war a yaakaar dépasse maanaam lu ne mën laa ërwee ñu ñëw tëj sa magasin ndax tey jii doo liggéey nga wëlbati ku tëj sa magasin ñëw ci bis bi boole ñu kër sa alal wax dëgg yàlla loolu sant nañ ci bu baax a baax gis nañ ko ñu ngi leen ci jégalu bu baax a baax na ñu ngi sant bu baax tamit ñi nga xam ne ñëpp ñoo bàyyi seen yitte mbooleem kuréel yi ak mboolem jàngkat rajas ak mboolem jàngkat aw yi képp koo xam ne ñëw nga fi tamit bëgg na barkeel te barkeelu tamit ñu ngi koy jiikalu bu baax a baax a baax te xam ne bés bi moo demee noonu te journée bi xat lu ñëpp bokk nag loo ci am da lay doy maanaam bu gan ñi soxlaa nag dëkk yi rek dañuy demee ñu ngi jégalu bu baax tamit ñi nga xam ne ñooy su suñuy kàddu maanaam di boole kenn service su Paku Lambaye gépp di leen wax ne nan gën a taxaw ci bis bii nan gën a jàpp bis bii ndax bis bii amuñu lu moom dañ koo am ci kaw ndigal mu doon loo xam ne lu jafe la yàlla suñu borom dogal ñu jële ko ci Cheikh mu Mountakha kon bis bi nañ ko fonk nañ ci def ak jublu nañ ci def ak yëg nañ ko jàpp te xam ne bis bi mënuñu am benn bis bu ko mag ñu ngi laaj appel ñëpp ñu jublu ci def ci seen yitte def ci seen pas-pas ñu ngi ciy woo ñëpp sant nañ ñëpp gërëm na ñëpp su ko defee waaw bu ko defee rek ñu commencé waat ndax sant gi rek xam ne comme bis bi jàll na ci jàmm ñu fas yéene ko commencé waat dem ak moom déwén incha allah di ñaan suñu borom ngeen ñu kàttanal ba defal ko daaw mu kàttanal ñu ba defal ko ren jii mu kàttanal ba def ko ay at yu bëree bëree bëree bëree bëri barke Serigne Saliou ñu ngi sant Serigne Mayel Diop ñi nga xam ne bii moo toogoon ci taabal bi mook àll euh, ba di recevoir euh, euh, enveloppe bi kenn ku ne xam ne ci suba ba léegi nga toog ci benn béréb dara gënu koo métti ñu ngi siyaara baax tamit ñi nga xam ne mooy àlla euh, bada ak Serigne Lay Bamb bi nga xam ne ñoo nekkoon ci wàllum baas bi wax dëgg yàlla booba léegi ñu ngi ci dox seen yitte dagg seen yitte yëpp nekk ci ba démb ci guddi rek daanaka ay deux heures dama dañ ñu ngi ci di liggéey ñu ngi leen di sant ñoom baax baax gis nañ seen taxawaay gis nañ seen jàppandal ñu ngi siyaar ñëpp di siyaar bu baax tamit ki nga xam mooy caméraman bi di e, sama jëwriñ comme ñu ngi moom ñu ngi koy siyaar bu baax booba léegi mi ngi tourné rek di macha allah am nañ mbégte bu baax a baax a baax ci yow su ko defee ñu ngi siyaar bu baax suñu Ibrahima Diagne ñu ngi koy siyaar bu baax mooy Fatou fu mel ni e, dëkk ñu àll ba la seen dëkkandoo la dagg ak yitteem daal di ñëw ànd ak ñoom bés bi ba boobu léegi ma nga nee toog moom it ñu ngi koy siyaara bu baax a baax baax di ko jox wàccuwaayam di ñaan sa borom tabaraka wa taala lépp loo xam ne jàng na ko ci ay xarit arabi si ak alxuraan rek yàlla gën paju aajoom ak bépp mboolem jullit moo xam ne yaa ngi dégg suñu kàddu حمدي وكانني وليراد أعداء أو جانبي إسلام نجوت بإنس الله من سطوة الهداية وليراد أمدرا ولي كرم الجنة أقاسني الحنان من كيد من خلا وسالكنا للخل لي بر ما ينبغي xale yi nga xam ne ñoo nekk ci pàkk bi tamit noo di seeni mag yi dañu nu ko cërale rek waaye seen seen pënd sax defuñu ko noo ngi ñaan yàlla yokk seeni fan ak seen ak wér yokk wërsëg yi ba lépp luñ fas yéene liggéeyal Touba yéene koo liggéey ñu def ko te nekkuk Cheikh Mouhamadou Mountakha te yàlla yàggalal nu ko fi lool te wéral ko lépp lu mu yéene liggéeyal Cheikh Mouhamadou Khadim yal na ko yàlla dimbali jàppale ko ba defal ko falu kiimaan lay doon ci yoon bi doon kiimaan ci ñi ko fi jiitu woon ba lépp lu mu yéene liggéeyal borom Touba mu defee kon mu kawen jortal kawen jortal way jortu ñi te nu ànd ko moom daraje Cheikhul Khadim jërë ngeen jëf dama mën a wut waxte sunu xol yàlla mi tële tëlewul dara kumpulewul dara te man lépp yor lépp mu defal ma lu kawe sunu njort lu xol demul kon di ko ñaan daraje Cheikhul Khadim jërë ngeen jëf

برما ينبع مدادي وأقلامي ولوي وكالكلي وجسمي لمن لي وجالس والوهبة مدادي وأقلامي ولوي وكالكلي وجسمي لمن لي وجالس والوهبة نويت له شكرا كثيرا كما دنا بي واسفي يوما جوى اللهبا لا جل سكري سداني بفلي وجاي الذي مليلو سالني عدبا لا جل سكري سداني بفلي وجاي الذي مليلو سالني عدبا